Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, de documentaires, des publi des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui met leur professionnalisme à votre service. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père, David. Euh, ñu ngi leen di nuyu fii euh, ci salaam Vision tey jii nag dañoo ñëw fi nga xamante ne moo di paroisse Saint-Jean-Paul II secteur Notre-Dame de la Joie euh, pour ñëw feeteek ñoom li nga xamante ne mooy nawet la naissance de Jésus-Christ tey nag di nekk bis bu mag ci catholique yi ndax moom mooy euh, bis bi nga xamante ne moom la Jésus Christ judd voilà léegi tey ñu ngi ci paroisse Saint-Jean Paul II avec Salam Vision merci beaucoup. voilà euh, jaar mbokk ci Salam Vision ñu ngi taxaw ki nga xamante ne mooy suñu euh, abbé François Ousmane Diouf curé de la paroisse Saint-Jean Paul II la messe a été célébrée par abbé Alfred Walia Seck voilà di wax ki nga xamante ne mooy abbé François di ko wax un joyeux Noël di ko wax ni euh, yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram sànq dégg yaa ngi wax ci euh, wàllum tabax bi bés ci yan tànk ngeen teg ba xam li ngeen doon ut yëpp ba xam dafa mot. bon d'abord gërëm ñëpp surtout aussi bonne fête à tout le monde muy xam ne daal ah. ñaanal ñëpp que atum 2021 doon at bu sell pour ñëpp et surtout que la maladie là la pandémie là disparaît dans le Sénégal et dans le monde ça c'est ma première Sénégal et pour le monde ensuite remercier le Seigneur bi nga xam ne def na pour lépp pour ñu célébrer Noël xam nga ne daaw jotuñu célébrer feetu Pâques jotuñu célébré euh, Pentecôte jotuñu célébré bopp ngeen te loolu dafa métti woon ci pour ñun euh, communauté catholique tey ñu am chance këram euh, Yeesu Christ saa bi nga xam ne moo dëkk si si àdduna dëkk si ñun ñu mën a célébré loolu lu am maanaam pour ci mbirum tabax xam nga ne man ci sama mission dafa bokk am dafa am loo xam ne ci bopp sama kilifa daf ma santaane aussi pour ma tabax fii église pour catholique yi fi nekkee ñu ngi daw ci loolu di wut de gauche à droite amaguñu lépp nag mais li ñu am dina tax ñu mën a commencé liggéey parce que euh, man seetlu naa ne euh, boo commencé rek dina tax loo mën tukki bi rek mu mu mu doon loo xam ne sax euh, ñu mun a jëkkal liggéey loolu mooy sama ñaan te ñaan aussi yëpp catholique yi ak ñi nga xam ne sax mën nañ ko def parce que j'ai j'ai vu un témoignage quand même il y a des musulmans qui ont cotisé il y a des musulmans qui ont cotisé qui sont de la communauté am na musulmans yi nga xam ne dañu cotisé pour dimbali ñu ci te loolu yaa ko Sénégal laa ko gis ngay tabax église. musulman naan ah lii mooy sama euh, participation loolu dafa rafet donc je je prie aussi pour tout ce monde là ñaanal ñëpp pour que Sénégal vraiment luñ ci séntu daal mu doon jàmm ñëpp. voilà Irak moom amul li nga xam. voilà ba ñu euh, newoon lépp euh, église yu ñu jàpp yu jumaa yi ubbi ñu seetlu ne église catholique dafa toog lu yàgg ubbiwut lan moo war a loolu yàggaay ba pare catholique yu bëri ñu doon réclamé ne église dafa war a ubbi ñu ñaan pour ngir Covid bi te église toog lu yàgg doo ubbi lu war a loolu yàggaay. alors ñun nag dañuy am ay kilifa c'est-à-dire nos évêques ñooy suñu kilifa. te ñun on les écoute dañ leen di déglu loolu moo tax bu ñu ne ah, jàngu bi du ubbe mënuñ ko ubbi bu ñu joxee ndigal ñu ubbi église ñu ubbi alors suñu équipe bi nag macha allah moom mbir taxoon pour ñu ubbi kii pour que ça ne fasse pas bi mu demee ba affaire bi commencé di wàcc foofu la joxe euh, joxe aussi pour que ñu ubbi église loolu moo tax ñu def ko mais mais bu ñu ubbi église bi lu ñu tere ñu gàddu les mesures barrières ça c'est important loolu moo tax fii balaa ngay dugg ci cour église bi boo amulee masque xale yi dañ lay dina no ñibbi il faut nga am masque jot nañu nag am ay masque boo xam ne ah ça coûte que cent francs que ñu mën a aussi di jël et cetera mais vraiment o respecte les mesures barrières et ça que j'appelle la discipline des chrétiens je tiens beaucoup à ça ici on garde la distance dañu garder distance yi dañu sol masque yi dañu range aussi suñu wax balaa ngay jóg ci ci biir église et ça je tiens beaucoup à ça parce que lu am maanaa la pour ñun mbas bi du basu abbé François mbasu ñëpp la te ko fooyee buñ ko fay mën nañ ko euh, na mën na bàyyi mën na chaque personne donne sa participation en gardant les mesures barrières loolu rek laay ñaan voilà. Euh, dañu seetlu ni fan yu passé gis nañu li nga xamante ne moo di état bi dem fële ci ci parc mbaam yi gis ñu ravage foofu yëpp dindi ko saccage boobu am ay mbaam yu dee nit ñi ne leen na ci seen mbaam yéen ñi ci dugg ci àll bi. muy wax en tant que curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II en tant que catholique te xam nañ ni majorité partie bi ñu yees foofu yëpp ay ay jaar en tant que des catholiques des jeunes yoo xam dañoo investir seen xaalis foofu léegi yow lan moo ci sa gis-gis par rapport ak li euh, jot a xew ah loolu nag yëguma ko sëñ Serge boobu moom xamuma ni ma ci wax dara parce que maa ngi koy dooree ak nii ah xaw ma nag lu tax ñu def ko kan moo ko def moo tax je ne peux pas me prononcer là pas courant, je pas qui a fait ça, les raisons pour lesquelles ils ont fait ça, mais je vais les informer ma ci wax dara. Salam Vision mu ngi lay di la wax di la remercier di la souhaitewaat joyeux Noël di la wax ni tamit ah mi ngi jégalu ci dérangement bi lépp li nga xamante ne euh, dañ ko bëgg a def rek li nga xamante ne mooy église catholique kanam bu nañ tamit di gën a ñëw pour bu ko defee kàddu bu leen am rek ñu mooy ñu ñëw taxawal leen ci bépp côté. man kañ maay gërëm man maay gërëm Vision. parce que lii rafet la mais comme aw ma seen payow ñaanal rek laa je vais prier pour vous pour que atum 2021 soit une année pour vous tous une année de réussite vous êtes des jeunes vous avez besoin de réussite et une les Sénégalais loolu la la ñaan daal surtout mbas bi jóge fii